defal yonent bi mu ne ko laa yaxzunuka bu tiit loola laa yaxzunka bu jàq loola la dina ñi nga xam ne yu saariuuna ñi ngay njëkkalante fil kufri ci kéefér gi innahum ñoom lan yadurru duñu lor laa yàlla cheyan dara yuridu bëgg na laaw yàlla àlaa yajala bu mu def lawum ñeel xaddan benn cër fi laaxira wala um ñeel leen adaabun mbugal moo xam ne azimun aji metti la inna ladina naka ñi nga xam ne yushtaraw jëndee nañu alkufra kéefér bi limaani gëm yàlla lan yadurru duñu lor laa yàlla cheyan dara wala um ñeleen adaabun mbugal moo xam ne alimun aji metti la wala yaxsabanna bu joortu la dina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ ne annama num lii naka dananu yiixe lawum ñeel leen xayrun moo gën li anfusihim ñeel seen bopp bu ñu yaakaar ne def ak ndëngate yàlla yiixe la ngay dund reyut la bu yaakaar ne loolu aw yiw la innama num lii naka dananu yiixe kay lawum ñeel li isdaadoo ndax ñu dolleeku isman bakkaar moo tax ñu bàyyi leen wala mu ñeleen adaabun mbugal moo xam ne muhiinun aji doyadal la mu leen maa kaana nekkut laaw yàlla li yazara di bàyyi almuminina julit ñi ala ma antum ci la yéen alayhi yéen a nga ca bàyyi leen nii rek yàlla du ko def xataa yemisa lu mooy dana dem ba xammee alxabisa aji bon ja mina tayibi ci aji teey ja wa maa kaana nekkut laaw yàlla li yutliakum di leen yérloo alal xëy bi ci li faddu xëy bu xamu leen ko walakin laa yàlla yette bi mooy tànn min rusuli ci yonentam man yashaaw ku ko neex fa aminoo gëm leen bi laay ci yàlla wa rusuli ak yonentam wa in tuminoo su ngeen gëmee wa tattaqu te ngeen ragal yàlla falakum ñeen leen ajrun yool boo xam ne azimun aji màgg la wala taxsabanna bu joortu lazina ñi nga xam ne yëpp xaloona dañuy nay bi ma ataawum ci la jox leen laaw yàlla min fadli yi ci ngëneelam bu ñuy joortu ne huwa loolu xayran moo gën lawum ñeen leen bal lu fi nekk nay googu huwa charun mooy yées lawum ñeel leen te képp koo xam ne sa alal doo ko génne azaka yowmal qiyam alal ja bu fekkee wurus la wala xaalis dañ koy tàngal di la koy ñaas naan la aza kanzuka aza maaluka wala boog buñ la sulee ci bàmmeel mu soppeeku jaani ñangoor laxasu la di la cop naan la ana ana kanzuka ana maaluka loolu la yàlla di wax naan sa yutawaquuna danañ leen caqal maa baxiloo la ñu doon nay bii ci àlal ji yowmal qiyaama mu mel ni caq rek waa nekk ci sa baat walilaahi ñeen la yàlla miraas samawaat yi donob asamaan wala rek suuf képp koo doon nit bu yàggee it nañ ne kooka dañ koy donn kooka yi dañ koy donn yàlla mooy mujj donn lépp nag di nekk ci asamaan ak ci suuf ndax moom rek moo des de wallaahu yàlla xabirun ku dañ kump la bi maa taamaloona ci la da ngeen def ko yahudi na ñaa Muhammad de yàllam ji dafa ñàkk ndax dégg naa muy naan kuy lebal yàlla ak kuy jox kuy jox yàlla i kon yàlla dafa ñàkk bay laaj naanu ñun nag ak ni yaa way oomal lañ yàlla ne baax na dégg naa ko sa nag tubu danañu bind maa qaaloo la ñu doon wax wa qatlahum ak bu tegal leen ci bindaale rey ga ñu rey alambiyaa yonente yi bi xeyri xaqin ci la deful dëgg wa naqulu dan wax ne duuqu ëllëg mos leen aadaabal xariqi mbugalam lakk ma daalika loolu bi maa qaddamat ci la li jiital na ko liggéey na ko aydiyakum seen loxo waan laa nak yàlla laysa bi dalaamin du tooñaakoon lil abidi ci jaam yi da ci ne ñi nga xam ne xaaloo wax nañ ne inna laa nak yàlla ahida yàlla moo miinal wala moo fasante ak ñun kóolëre ili naa ci ñun ne allah numina bu nu gëm li rasulin benn yonent hatta yaatiyana lu may ba tam ñu indilee bi qurbaanin ci jaamu yàlla goo xam ne taakuloo da koy lekk naaru safara ñoom ñu ne yàlla moo leen moo leen wax loolu fasante woon nañ moom kóolëre ci loolu mu ne waaye xul waxal ne su fekkee loolu dëgg la yéen kay xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent min qabli ci li ma jiitu bil bayinaati ci lay yu weex wa billazi indi woon nañu li nga xam ne xultum waxoon ngeen ko muy jaamu yàlla gu safaray lekk te terewut terewut ngeen weddi leen baray leen fa li ma kon lu tax xataltumuhum ngeen rey zakariya ak yaxya te indi woon nañ loolu in kuntum ndem nekk ngeen saadiqin di way dëggu de fa in kaddaboo ko bu ñu la weddee kon yow yonent bi bu mu la metti faqat ku di ba weddee foon na rusulun ay yonent min qablika ñu la jiitu jaawootee dikkee woon nañu bil bayinaati ci lay yu weex wa zuburi ak téere wal kitaabi ak téere al muniri bu daa ji leer zubur ak kitaab kooku mutaraadifaat la zubur jamu zabur wa huwa al kitaab kon mu ngi mel ni mutaraadifaat la wala at fu bayaan su la neexoon bil bayinaati wal kitaabil mu- al muniiri waaye bil bayinaati wa zuburi wal kitaabi loolu yëpp ay muraad mutaraadifaat la te loolu arab da koy waxee wolof da koy waxee wax tuddaat ko ngir feddali ko day am lu mu ci jublu nag la mu ci jublu moo di gën a leeral bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci ne na nit ñi xam ne lépp luy dund ak mu jëm mooy mu dee jóge fi dee duñ ko ndokkoo kenn duñ ko xeebee kenn ndax kenn du ko def ku ne dañ la koy def xataa ki xaru sax ki moom dee bu ko joxut dee ga du du dee ca xaru ga waaye kon jaru nit ki di ragal dee ndax moom moo lay xaar te moo di sëg mujj kaab dina kullum nu unsa wa in taalat salaamatuhu yowman ala alati alxadbaai maxmulu nit lum gudd-gudd fan bés dana ñëw ñu yenu ko ci ay bant di ko yóbbu ci àll ba kon nag jarul ngay ragal defal lii la sa borom sant def li la war rek waaye dee jarul ragal ndax fokk day dikk moo tax ne kullu nafsin bépp bakkan daayiqatul mawti aji mos la mu dee wa innama tuwaffawna naka def na matal leen ujurakum seeni yool yowmal qiyaama fa man zuxzixa ku sorileef na ko ani naari ci safara wa udxila dugaleef ko aljanata aljanna kooka faqad faasa texe na wa mal xayaatu déet dund bi adduniyaa bu daa ji jege muy àddina illa mataaul guruur lu mooy mu nekk xéewal yoo xam ne day waraate de da nga ciy nekk mu di la woor ba nga fàtte yàlla nga dem ca noona waaye la tëb lu wut na danañu nattu leen fi am waalikum seen i alal di muy dem waan fi ak seen bakkan muy ami na tokki feebar ak i dee wala tasmauna da ngeen déggit mi ne lisi na ci ñi nga xam ne oto joxeef na leen alkitaaba téere min qablikum ñi leen jiitu woon da ngeen ca dégg wa min allisina da ngeen déggit ci ñi nga xam ne ashrakoo ñoo bokkaale ak yàlla da ngeen ca dégg azan ay lor muy wax ju ñaaw katiren ju bari wa in tasbiru su ngeen muñoon wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna dalika loolu min azmil umur yi bokk na ci dogu ci ay mbir bokk na ci bon bonu yahud yi ba tey mu ne way axada jàngatal ba jàppee laaw yàlla misaaq alladina kóolóor rek ñi nga xam ne oto joxef na leen alkitaaba téere yàlla dafa fasante woon kóolóore ak nit ñi ne leen yéen yéen alul kitaab jox naa leen tawraat jox leen linjiil ëllëgee nag su ma yónnee yónnente jox ko téere ndax da ngeen ko gëm ñu ne waaw ñu war nag moo tax mu ne la tubayyinunnahu ndax bu téere ba ñëwee da ngeen biral la ngeen xamoon li naa si ñeel nit ñi te li ngeen xamoon ci tawraat mooy ngeen béglee dikkug yónnent bi ak nu muy mel wala taktumuunahu te bu leen ko nëbb ñoom nag fa nabazuhu sani nañu ko waraa duhurihim seen gannaaw yi gannaaw washtaraw jëndee nañu bi ci moom tamanan njëg xale leen guddaa ji tuuti fa bii sa bon maa yashtaroona li ñu koy jëndee ndax àddina laa taxsabanna bul joortu la jëne ñi nga xam ne yafraxuun dañuy bégee bi ma ataw ca la dikkee nañ ko ma ma ma mooy la la def nañ ko daal la def nañ ko wa yuxibuuna ñu bëgg na an yaxmadoo ñu gërëm leen bi maa lam yafaaloo ci lu ñu defut falaa taxsabannahum bu leen joortul mukk bi ma faasatin ci genn ak texe mi ne ak rëcc mi ne laazabi ci mbugal ma wala um ñeel na leen adabun mbugal alimun mu daa ji métti walilaayi ñeel na yàlla mulku samawaati mooy la asamaan wala ard ak suuf wallaahu yàlla qadrun a jaatan la ala kulli shay'in ci lépp lëf yàlla mën na ko inna fii xalqi samawaati naka nekk na ci bind gi yàlla bind asamaan si wala ardi bind gi mu bind suuf si wax ci laa fi leyli ni mu wutalee guddi wanaa rek bëccëg laa yaatin kawtéef la liulul albaab ñeel borom xel yu sell yi ñenn la seen i xel sell la la seen mooy ñi nga xam ne yaskuruuna ñu ngay tudd laaha yàlla qiyaaman moo xam dañoo taxaw fa quudan wala dañoo jékki waala junubihim wala dañoo tëddeeg seen ak wet wa yatafakkaruuna fu ñu toll ñu ngay xalaat fi xalqi samawaat yi ci bind gi yàlla bind asamaan wala deeg suuf waaye duñu xalaat ci jëmmi yàlla ji ñu ngi naan rabbana yàlla maa xalaqta bind loo haasa lii baatilan ngir ak neen subhaanaka tudd nañu sa sell fa qinaa ya na nga musal ñu azaba naari mbugalam safara rabbana yàlla innaka yow man tudxilu koo dugal naara safara faqad axzaytuhu toroxal nga ko wa maa li daalimina ñeerul way tooñ ya min ansaarin ku leen di tere walis mbugalam yàlla rabbana yàlla inna naa ñun samina dégg nañ munaadiyan aji woote yunaadi ma ngay wootee lil imaani jëm ci gëm yàlla ma nga naan an eey aminu gëm leen bi rabbikum seen borom ñun nag fa aman naa gëm nañ rabbana yàlla faxfir yàlla nga baal la naa ñeel ñu dunoo banaa suñuy bakkaar wa kaffir yàlla na nga far ànd naa walis ñu sa yaat naa suñu ñaawteef wata wafanaa yàlla na nga faat ñu maal abraar ñu ànd ak way baax yi rabbana yàlla waati naa yàlla na nga jox ñu maa waata naa la ñu dëloon ala rusulika ci sa yonente yi wala tuxzina yàlla bul toroxal ñu yowmal qiyaama bés penc innaka yow laa tuxlifu doo wuutee mukk almiyaadab dël de yow doo foo sa randiwu mu ne mu ne bu ñu ko waxee fastajaaba nangu na yàlla lawum ñeen rabbum seen borom yàlla ne ani man de laa wadiu duma sànk mukk amala amilin jëfee aji jëf min kum ci yéen min dakkarin moo xam góor la aw untan wala jigéen la ndax baadukum leen ci yéen in baadin ci ñenn ñi leen jógee fa lazina ñi nga xam ne haajaroo ñoo gàddaay wa uxrijoo génneef leen min diyaarim seen kër ya wa usoo loreef leen fi sabili ci sama yoon man yàlla wa qaataloo ñu xeex wa qutiloo reef leen ñooña law kaffiranna man yàlla may far anum walis leen sa yaatim seen i ñaawteef wala udxilannahum maa leen di dugal jannatin aljanna yoo xam ne tajri dana daw min taatiyaa ci suufam alanhaaru yali yéenta sawaaban mbir moom mu nekk di bi yool min indi laay bàyyee ko fa yàlla walaahu yàlla nag indoo nekk na fa moom husnu sawaabi rafet ak yool maanaam lu gën a rafet ci la nga liggéeyoon loola lay jox de laa yaxurannaka taqallubu alladina kafaroo fil bilaadi al imaamu razi nee na ba yàlla dalee julit ñi bi sawaabil azim yool bu màgg te fekk ñu ngi ci àddina ñu ngi ci ak ñàkkaaku tiis yéefar yi nekk ci ay xéewal yoo xam ne yu dogut la mu ne ba yàlla waxee loolu moo tax mu teg ci ay ji di dëddëfal seeni xol di leen muñloo tar-tar yooyu di leen xamal ne la ca des moom wor rekk la moo tax mu ne laa yaxurannaka bu wor la taqallubu ladina walbatiku ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ fil bilaadi ci réew yi seen dem ak dikk beeg tukkee ka yéeg ak wàcc bi bu mu la yéem man-man yooyu ak moyen yooyu mataawun xéewal la xalilun gu tuuti ndax àddina dong la su ma maawaawum seen tappuwaay ëllëg jahannama la wa bi sa bon na almihaadu lal ba ndem safara laakin waaye la dina ñi nga xam ne taqaw ragal nañu rabbum seen borom lawum ñeel na leen jannaatun aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taatiya ca sa ca suufam alanhaaru yoli yent xaali dinañu di way beelu mooy sax fiyaa foofale nuzulan mu di wàccuwaay mi ne di laay bàyyi ko fa yàlla wa maa inda laa li nekk fi yàlla xayrun moo gën li labraar yi ñeel way baax yi wa inna min ahlil kitaab yi naka nekk na ci ahlul kitaab laman koo xam ne yuminu day gëm billaahi ci yàlla wa maa unsila ak la wàcceef na ko ilaykum jëm ci yéen wa maa unsila ak la wàcceef na ko ilayhim ca ñoom gëm nañ ñoom seen téere gëm sunub téere xaashiina ñooña koy toroxlu li laay ñeel yàlla laa yashtaroona duñu jëndee bi ayati laay ci alquran yàlla samara njaqalin gudaa ji tuuti ki ñu doon jàngal mu ne moo taxit day kenn du mën a weddi ne bu fekkee amul ci ñoom ñuy nëbbu di julli ndax xam nañ ndax yàlla moo moo leen feeñal ulaayika ñooñu lawum ñeel na leen ajurum seen yool inda rabbim fa seen borom inna laa yàlla sariul xisaabi ku gaaw nu muy xisaabee la dawe woon nañu wax ko ci gannaaw xisaabam ba ni muy gaawee yaa yo li dina amano ey yéen gaa ñi gëm alquran asbiru muñ leen wa saabiru na ngeen sax ca muñ ga warabitu na ngeen di faando faando mooy takku dem ca frontière ba yore ngànnaay di xaar noon bi war a lor julit ñi mu yem ci yow nga dajeeg moom loolooy rabitu wattaqullaa na ngeen ragal yàlla laalakum boo yeen tuflixoona ngeen texe suratu nisa saaru jigéen madina la wàccee loolu quraaw yi loolu ñu wax téeméeri aaya ngi ceeg juróom-ñaar fukk ak juróom benn buxaari yi nee na aïcha nee na saar wi boo gisee ñu ne madina la wàccee dëgg la ndax amu ci benn aaya bu wàcc lu may bu muy wàcc maa ngi ci wetu yonent bi loola day tekki ne ñu ngi ko mayee yonent bi ci mag waaye ñu ngi ko joxe yonent bi ci madina te nee na saar wi yépp ba muy wàcc maa ngi nekk ak yonent bi kon nag madina ya la mu ne yaa ayyuha naasu ey yéen nit ñi kooku nag jinsul bashari bi yépp la wax nit mooy alxayawaan an naatiq mooy mooy daaba joojuy wax kooku moo di nit kooku mooy naasu ñoo ñëpp na la yàlla woo tey waxut yaa ayyuha alladina amanu alladina kafaroo moom benn rek la ko wax ci wax ci alquran ndax dafa dafa soxlawul seen mbir te bi mu leen wooyee it dafa ne bu leen ut ngànt safara ngeen jëm yaa ayyuha alladina kafaroo laa taatadiru benn yoon rek la ko wax alladina amanu ñoo ko yitteel moom lay wax fii nag woote bi naasu yëpp yëpp yëpp ñëpp ñu bàyyi ko ci aadama ñoom lay wax ne ittaqu ragal leen rabbakum seen borom la si mooy ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind gis nga jooju wax ragal leen seen borom mu mel ni da nga ko war a wax ne kuy seen borom mu ne xam nga ko mooy ki leen bind ndax ku ne xam na ne nit lépp lu mu bind wala mu def ko aw turam a nga ca waxoon naa leen ne ingénieur bi liggéey moteuru Peugeot Peugeot la noonu la waaj a tudd moo tax aw turam la yenu Renault it ki ko njëkk liggéey aw turam lay la la yenu nit lu mu liggéey signature am la cay def ñu ne diwa ko def kon nag nit nit moom kon ci boppam kan moo liggéey nit gisuñ ci signature kenn te kenn mësu koo revendiquer asamaan si signature kenn nekku ci kenn mësul revendiquer ne moo ko bind suuf si kàccoor yi li ñuy bari bari bari mosoo dégg ko ne moo defar suuf si kon yooyu yàlla moo leen defar moo tax mu ne yàlla mooy ki leen bind mi nafsin ngeen bàyyee ko ci bakkan waaxidatin ba di benn wa xalaqa mu bind mi naa ci am zawjaa jabaram ja aadama mooy benn bakkan moom la yàlla bind ba mu ko bindee ci biiram ci yaxu faar yaxu faaru wet gi ci côtelette bi ci la ci la ci ci la xar génnee génnee xawa loolay xalaqa minha zawjaha loolu moo tax ñu ne alwaxda alkaamila mooy rajul góor kon mooy unité complet bi yàlla njëkk bind moom mooy mag moom lañ njëkk bind de xaree ci moom nag mu jur xawaa ñoom ñaar nag ñoo jur ña ca des waaye nit ku jëkk ki di aadama yàlla nga ko jëlee ci suuf la ko tabaxee waaye gannaaw moom nag amut kenn kuñ bindee ci suuf ku ci nekk nag ñaari nit ñoo lay jur wala genn nit genn benn nit bu góor jur na kenn muy aadama moo jur xawaa kenn ku jigéen jur na nit muy mariama moo jur Eesa gannaaw loolu nag ku ci nekk rek ñaar moo lay jur moo tax bañ ne Eesa doomu yàlla la ndax ku juddu te gisuñ baayam kay yàllaa ko jur yàlla ne am na lu gën a yéemu mooy aadama moom ci suuf laa ko jëlee amul ndey amul baay yéemu na Hawa it yéemu na am na baay amul ndey loolu sax moo gën a yéemu ndax baay baaxoo wutoon doom di génnee ci moom te mu ngi noonu kon te ñooñu defuñ yàlla kon loolu du tax ne nekk yàlla bu fekkoon ko amul baay di yàlla wala ko amul ndey di yàlla kon aadama yi amul ndey amul baay kon mu nekk yàlla wa batta mu tasaaree min humaa ci xawa ak aadama rijaalan ay góor katiren yu bari wa nisaan ak jigéen wa taqulaa ragaleen yàlla la si yàlla ba nga xam ne tasaaluuna yéen a ngi laajante bii ci moom yàlla bi nga xam ne ku laaj sax ne ngir yàlla yàlla moomu ragal leen ko wala arxama te ngeen ragal ak bokkit bu leen ko dagg inna laa yàlla kaana musu moo dañ raqiban di aji fuglu aleykum ci yéen ki ñu doon jàngal mu ne kaana yi ci suratu nisaa yëpp laa zaala wala laa yazaalu lañ koy firee ndax am boo ko firee leneen itam mu dem waaye pour nga dégg ko daal kaana musul dañ la même buñ ci fàtte firi noonu it nga xam ne kaana yi ci jigéen yëpp musul dañ lay firi bàyyi na loolu mu ñëw ci jirim mu ne wa aatoo jox leen alyataama jirim ya am waalahum seen alal ya bu sa mag dee wala sa rakk wala sa baay bàyyi la fa nga nekk kilifa ak ay jirim jirim mooy ku baayam dee te matagul mu kalaf su ma te mu kalaf nekkatul jirim bàyyoo nag bàyyoo nag moom ci wàllu yaay la waaye jirim ci wàllu baay la ku man mu kalafit bokkatoo ca mu ne jirim nag bu leen na ngeen leen jox seen alal bu ñu matee mu kalaf wala te te baddaloo da nga ko doon dencal mag na jox ko ko bu ko wecci bul wecci mukk alxabisa lu bon bi tayibeeg lu teey nga jël lu bon la jox ko lu baaxam la nga wecci ko wala taakulu bu leen lekk amwaalahum seen alal ñoom jirim ya ila amwaalikum ngeen boole ko ci seen alal yi yéen ñu ko dénk innahu loolu kaana musul dañ xuuban di bàkkaar kabiran bu daa ji màgg de xajazi nee na wayen qisitu nee na loolu mooy taaddudu zawjaat fan la yàlla daganal ci ay jabar lu ëpp benn sharia al islaamiya sharia bu maando la yàlla ma ko rëdd moo bind nit te ku bind li nga bind xam nga ko yàlla xam na ne kim bind mënul yem ci benn même bu fekkee ma ngi cay yem it xalaatam du yem ci benn bi yàlla ne ko kon nag jirim bi nga yar ci dëkkër gi te mu dagan la balaa nga koy exploité lekk alalam te nga takk ko soo ko mënul takk jox ko alalam keneen takk ko fekkee da nga amoon jabar moo tax yàlla ne jabar ñaar laa waxoon ak ñett ak ñeent moo tax mu ne wayin xiftum ndem ragal ngeen ala tuqsitu du ngeen maandoo fil yataama jirim yu jigéen ñi leen dénk fankixu denc leen maa taabalu tey na lakum ñeel leen lépp lu ngeen bëgg mi ne ni saa yi ci jigéen na ngeen ko denc ñu ne nan la ñuy dencee yàlla tee nga leeral ko mu ne mas naa ñaar ak ñaar wa tulaata ak ñett ak ñett wa rubaa ak ñeent ak ñeent luy maanaam loolu daawuda zahiri muy almazhabul xaamis ñeenti ngéer la ngéeram juróomeel mooy bu daawuda zahiri daawuda zahiri ne na yàlla li mu wax fii mooy juróom-ñeenti jabari gor moom def na yàlla def na ñaar ak ñett ak ñeent mas naa ñaar wa sulaasa ak ñett wa ruba ak ñeent loolu mooy mazhabu daawud zahiri am na ci ulamaaw yi ne déedéet yàlla fukk ak juróom-ñett la wax ndax daf ne mas naa ñaar ak ñaar muy ñeent wa tulaat ak ñett ak ñett muy juróom benn wa ruba ak ñeent ak ñeent muy fukk ak juróom ñett daawuda zahiri mazhabul jam'i réewam jam'u la dafay boole ñaar ak ñett ak ñeent ulamaaw yi nag ñoom naxu bi grammaire bi moo leen guidé dañ ne bu yàlla bëggoon wax ñaar daf naan isnataani waaye mas naa ñaar ñaar la wax nañ dëgg foofu gaa mas naa gaa ñaar ñaar la sulaasa it ñett ak ñett la rubaa ak ñeent ñeent la wante ulamaawu sunna ñoom dañ ne loolu yépp mooy ci ñeent nga yem la wax amaa nag mas naa ñaar ñaar ji ñu ne loolu mu ngi mel ni yow baykat bi yore sa gerte walla sa ñebbe di ko ji borom tool bi ne la defal ñaar ñaar mooy tooba mu ne nga def ci ñaar loolooy ñaar ñaar kër gee am ñaar kër gee it am ñaar mu ne bu ne ñett ñett mooy kër gee mën naa am ñett kër gale it am ñett ñeent ñeent mooy jiyee leen ko ñeent ñeent fu ne na am ñeent waaye duhut ne da ngay def ñaar booleeg ñett ak ñeent waxu ko ndax booy ji ñu ne defal ñaar ñaar yow da nga xam ne. ngay def fii ñaar dem feneen def ko fa kër gee am kër gale it am loolu la ahlu sunna wax ñu ne li ko firi lu ëpp ñeenti jabar bu daganoon ci sharia kon kon yonent bi wax ko walla mu tere du tere ku ko def te waajoo jóge woon ci benn xëylaan ba mu tuubee fukki jabar la indi yonent bi ne ko tànn ci ñeent te fase ña ca des waxut ku njëkk waxut ku mujj tànn ci ñeent fase ña ca des ñu ne fase ni mu méttee teqalikoo ni mu méttee tuubee ni mu yombee murtat bu fekkoon ni lu ëpp ñeent dagan na kon yonent bi bàyyee ko waa joojule waaye daf ne ko ixtar minhum arbaan wa faariq al uxrayat loolu mooy masna wa sulaasa wa rubaa geneen ci sunna geneen anam gi mooy ndeke yàlla kat xam gim ñu xam moo tax dafa tëb rek ne def leen ñaar wala ñett wala ñeent ndax xam na ne kenn daf ñuy të ñu ne waaw léegi nag am na ci ay gaay yu sant jaw yoo xam ne seen bopp attanul ñaar wala ñett wala ñeent nag ndax seen ak faiblesse ak seen feebal ak doyadi buur ne ah dans ce cas wayeen xiftum bu ngeen ragalee nag ne allah taadilu du ngeen jub xanaa da ngeen di jeng fa waaxidatan yem leen ci kenn ki ku sa bopp attanul lu mooy kenn waaye yem ca rek aw ma malakat wala nga wutib taara wut loo xam ne moom na ko ay maanukum seen i ndeyjoor dalika loolu àddinaa moo gën a jege àlla taxulu bu ngeen jëngatit waatoo jox leen ni saa jigéen ña sa duqaat yi na seen can ya neex la ten mu dig may fayin tëb na bu ñu teeyee lakum ñeen leen an shayin ci dara menu ci can nga mi nafsan ci bakkan fokkuloowu lekk leen ko can ndaw saa ko moom bu la ko ndaw sa mayee nag loola na nga ko lekk hani an nga nekk di ku ñu ndokkeel mari an mu nekk lu neex ndax am jabar ba pare can nga mu mayaat la ko loolu moom hani an mari an la mu ñëw nag ci yeneen atte yoo xam ne mu ngi aju ci alal nit ñi am na ci ñoo xam ne dofuñu waaye dañoo dese waa ji nee na wal junoonu fu noonu ndaf ay xeet la am na ñoo xam ne nag dofuñu carrément ji ne jàppul leen amuñu crise waaye dañoo dof ndax am nañ ci fànn mooy bu ñu amee seen alal dañ koy tasaaree ba duñ ci jëriñu même bu ñu amee jabar ak ki doom ñu liggéey ba weer dee ñu fay leen dañ koy pasar pasaree ba bu ñëwee duñu am lu ñu lekk ñooñu dañoo dof sharia na ñu mel noonu dina am ña ngay dem ci bukki kër ya di ko fa bukki ba duñu indi dara di ko yàq ci lu jaaduwut ñee di ko karte ñee di ko nangam nangamee mu yàqu ba duñu am dara sharia na ñooñu dañoo dof ñooñu bu leen leen jox seen alal da ngeen ciy sàkk lu ngeen di dagg mu jëm ca kër ga ngeen jox ko lu ca des mu yàq ko mu ne wala tuutu bu leen jox sufaha way dof ya sufaha way deseñay xel am waalakum seen i alal lu mu yàgg-yàgg doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne dañ leen di dañ leen di diri diriger rek di leen dimbale waaye mënuñoo doxal seen mbiram bopp am na ñoo xam ne leen di yore faaw faaw mënuñoo yore seen bopp lu ñu am sax nañ lay jox nga téye ko di leen ko defaral loolu la wala tootu sufaha amwaalakum deti yi nga xam ne jaala def na laaw yàlla kum ñeel leen xiyaaman ngeen di way taxaw ndem yéen yéenay seen kilifa yaay mbokkam mu ko jege di kilifaam war cee mën a taxaw kon nangul alal ja war suquhum ngeen leyal leen ca wërsëgal leen ca fiiha waksuhum bu naree buñ soxla ay ay yére ngeen wodd leen ca wa quulu lahum ngeen wax leen xawlan wax maarofan ji ñu xam ngeen wan leen ne lii kat bu ma koy def ngir jëriñ la rek la yow laay dimbale waaye soxlawuma ci dara wabtaloo na ngeen nattu alyataama ay jirim nag bu ñu la dénkeeb jirim na nga nattu xelam bu xelam matee nga jox ko alalam ataay sa balaxoo bu ñu jotee nikaha war a denc ngeen dencaloo leen fa in aanastum bu ngeen yégee minum ci ñoom rushdan njub fadfa'u jiñ leen ilim ci ñoom amwaalum seen alal ya wala taakulooha bu leen lekk alali jirim israfan ngir yàq wa bidaaran ak gaawtu an yakburu balaa ñoo màgg di gaawtu rek naan balaa mag balaa muy mag bay jël alal ji ma yàq ko wa man kaana ku nekk na ganiyan di aji oomal fal yastaafif na na dund dundal alal jirim ba te fegu bu mu jël alal jirim waaye wa man kaana ku nekk na faqiran di aji ñàkk nag kon na jël ci alal jirim ba lu tolloog la jirim bay dundee boole ko alalam di ko dundee fal yaakul na ca lekk bil maarufi ci luñ xam fa ida dafaatum bu ngeen jiñee bu ngeen joxee ilim ci jirim ya am waalum seen alal ya fashidu da ngeen ko wutali seede alayim waral leen wa kafa doy na bilaay ci la xasiban di ku aji doy di xisaab li rijaal yi ñeel na góor yi ñeel loolu li ko tax a wàcc mooy awsa ibnu saamitul ansaari dafa faatu bàyyi jabaram ju naan ummu kaxlata ak ay doom yu jigéen amul benn doom bu góor léegi nag alal ji bu ndaw si jëlee sumun bi doom yi jigéen jigéen yi jël si lu saani li des ci alal ji day dem ca am naa wala am ya doom yi bàyyi tax ya loolu nag ba loola xewee umu kaalata ne doomi baay tax yi du ñu donn moom moo ki doomam ñooy donn jëkkëram ñu tawat nag ñëw kalaame ci yonent bi bañ kalaamee ci yonent bi mu dal leen di woone waaw yéen lan moo tax ngeen ne yéen doomi baay tax yi yéen ñu góor ñi umu kaalata kay moo yey aaye leen ab dono yéen ñu góor ñi yéen ngeen ñëw aaye seen do- rakk yu jigéen yi ab dono te ñoom la seen baay dee fu ngeen ko teg ñu ne yonent bi ñii suñuy jigéen rekk lañ ñoom bu xare ñëwee duñu yenu ngànnaay bu musiba ñëwee duñ ko défendre sëmp kër duñ ko def kon ñoom duñ donn ñun ñooy seeni doomi baay tax ñoo koy donn yorewaale leen alquran nag ne déedéet wal li rijaali ñeel na ay góor nasibun cër mimma taraka ci la bàyyi na ko alwalidani ñaali way jur wala aqrabuun ak way jege ñaale walin nisaayi ñeel na jigéen it nasibun cër mimma taraka ci la bàyyi na ko alwalidani ñaari way jur ya wala aqrabuuna ak way jege ñaale mimma qalla ci la néew na menu ci alal ja aw katura wala mu bari nasiban cër la mafrodan bu di bu ñu dogal wa ida xadara bu teewee alqismata séddale ulul qurba boromi jege ñaale wal yataama ki jirim wal masaakine ki miskin farzuquhum na ngeen leen wërsëgal minu ci alal ja wa qooloo ngeen wax lahum ñeel leen qawlan wax maarufan judi ju ñu judi ju ñu xam bu ñuy miraas nga xam ne soo ko calculer dana dagg dana am ay kusuur ay damma-damma da ngay jël lu ndaw loolu nga tonni ko ñi nga xam ne jege nañ niiw ba te sharia mayu leen cër nga jox leen ko te ne ah yéen kat sharia joxul leen dara lii ñun ñoo leen ko mosal rek ndax it ni ngeen bokkee ak ndax bokk ak nit ndey ak baay mu am alal ju bari ñu di ko séddalee ñoo ñuy soxla ko te duñ ca jot loolu metti na ay am lu ñu dindi jox ñoo ñu ko jege te waruñoo doon te wax leen ne leen sharia kat moo leen joxut li alal ji bari bari sharia joxut leen moo tax ñun nag ñu jox leen lii moo tax mu ne wa ida xadara alqismata ulul qurba wal yataama ak jirim ya fa ñëwoon taxawaalu wal masakin ak miskin ya fa fekkee yépp farzuquhu minu ngeen mosal leen ci wa qoola lahum qawlan maarufan ngeen wax leen wax juñ xam wala yaxsha na ragal la jëne ñi nga xam ne law tarako buñ bàyyi woon min xalfihim seen gannaaw duriyatan ay doom di afan yu néew doole xaafoo ñu ragal alim ci ñoom wali fal fal yattaqu nañu ragal laaha yàlla wala yaqulu nañu wax qawlan wax sadiidan judaa ji jub ina la dina naka ñi nga xam ne yaakuluuna ñooy lekk am waalal yettaama alali jirim ya dulman ci tooñ innama yaakuluuna naka danañu lekk fi butunum seen biir ya naaran safara wa sa yaslawna danañu jaaru sairan aw lakk moo di safara yusikumullaahu yàlla moo leen di dénk fi awlaadikum seen doom yi di dakkari ñeel na doom ju góor mislu haddil unta yey ni comme cërëb ñaari jigéen fayin kunna buñ nekkee ñoom gune yi jigéen ya ni saan di jigéen fawqa yi na tey ni ëpp na ñaar fa lahunna kon ñeel na leen tuluta mataraka ñaari sulusi ñaari ceeri la nga xam ne bàyyi na ko wayin kaanat bu nekkee waaye da tan benn doom bu jigéen falaa ñeel na ko ci baayam bu dee nisfu genn wàlli alal ja wali abu way hi ñeel na ñaari way juri niiw ba li ko li waaye ñeel na képp kenn min huma ci ñoom ñaar asudusu ab juróom benneel duñ ko bokk ku ne ab juróom benneel lay jël li kulli waahidin min huma sudusu bu fekkee ne bàyyiwul doom ju góor kay xanaa doomu jigéen la bàyyi bu doomu jigéen jëlee ni sëf kon ñi ca des sudus la ñuy jël mi maa taraka ci la bàyyi nag ko niw ba wayin kaana bu nekkee la woo ñeel niw ba wala dun doom ju góor nag ñu seet wayin lam yàkkun bu nekkut la woo ñeel kon noonu lay def wayin lam yàkkun bu nekkut nag la woo ñeel ko wala dun doom wari sowoo doon na niw bi abawaahu ñaari bàyyam ñaari baayam mooy ndeyam ak baayam kon dañuy séddoo duhut li kulli waahidin minhumaa sudusu kon léegi doom ji góor nekku fii ndey ak bàyyi doon na kon fa li ummihi ñeel na yaay ja attulutu ñetteel ba fa in kaana bu nekkee la woo ñeel ko non niw ba ixwatun ay frère ki mbokk fa li ummihi kon ñeel na yaay ju sudusu juróom-benneel ba min baadi wasiyatin gannaaw dénkaane yoosi bu muy dénkaane bi yaay ci moom aw daynin wala bor abaakum seen baay yi nag waa am naawakum ak seen i doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñu aqrabu moo gën a jege lakum ñeel na fan ci njëriñ sa baay ak sa doom kenn xamul ku la ci gën a jege moo tax ñoom ñaar ñoo gën a dëgër ci miraas baay ak doom ñoo gën a dëgër ci miraas ndax xamuñ ku ci gën a jege lakum ñeel leen nafaan njëriñ faridatan lii luñ dogal la mi ne laay bàyyi ko ci yàlla ina laa yàlla kaana musul dañ aliman di aji xam xakiman di aji xarala wala walakum ñeel na leen yéen ñu góor ñi nag nisfu ma taraka gannaaw rek la bàyyi na ko aswaajukum seeni jabar góor bu jabaram faatoo day jël jur gannaaw li alal ja in lam yàkkun ndem nekkul lahun na ñeel ndaw sa wala dun doom fa in kaana bu nekkee lahun na ñeel jigéen ña wala dun doom fa lakum ñeel na leen yéen góor ñi rubu ñeenteel ba mi ma tarak na ca la jigéen ña bàyyi nañ ko min baadi wasiyatin gannaaw bu ñu dénk génnee dénkaane ya yoo si na bu ñuy dénkaane bi yaay ca moom aw daynin ak bor bu ñu génnee bor yeeg dénkaane yi wala hunna ñeel na jigéen nit ci jëkkëram ju dee ar rubu am ñeenteel mi ma taraktum ci la ngeen bàyyi in lam yakkun dem nekkul lakum ñeel leen wala dun doom fa in kaana bu nekkee lakum ñeel leen wala dun doom nag fa la hunna ñeel na jabar ya ak lu ñu bari bari asumunu ab juróom-ñetteel la ñuy seddoo mi ma taraktum ci la ñu ci la ngeen bàyyi min baadi wasiyatin gannaaw dénkaane toosuuna moom danañ dénk ko bi yaa ci aw day ni wala bor wa in kaana bu nekkee rajulun waay yoorasu dee fi ko donna kalaalatan muy kalaala kalaala mooy ki nga koo xam ne dee na laa asla lahu wala faraa lahu dee na amul baay amul doom kon ñépp ñi ko doon ci jege ñaale la waaye ñu mu jógee ci moom nekkuñ fi kenn jógewul ci moom loolu mooy kalaala aw imraatun wala jigéen ñu koy doon ci kalaala wala woo ca ñeel na ku góor kii axun mbokk mu góor aw uxtun wala mbokk mu jigéen faliku li waaye ñeel na képp kenn minu maa ci ñoom ñaar sudusu ab juróom benneel fa in kaano bu nekk ak di gën a bari min dalika ci loolu loolu mooy ay doomi ndey ax lil ummi la wala uxtu lil ummi kon foofu ñoom suraka ñooy bokkaale fi sulusi bu fekkee nit ki dañ koy doon ci kalaa la ñi mu fi bàyyi ndey la bokk ak ñoom bokk ñu bàyyi sawaw góor la wala jigéen la sulus la ñoo cay yem foofu góor du ëppale jigéen ay doomi ndey bu ñuy doon na kuñ bokkal benn ndey te bokk ñu bàyyi góor ak jigéen a fay yemale loolu moo loolu lay wax ne aktar min dalfihim shuraka fi thuluthi min baadi wasiyatin gannaaw dénkaane yusaw dina dénkaane bi yaa biyaa ci moom aw daynin wala bor xeyru mudaarin boo xam ne du aji lor de wasiyatin li dénkaane la min laa bàyyi ko ci yàlla walaaw yàlla li mun aji xam la xalimun yàlla aji aji lewet la de tilka loolu xududullaahi mooy dayale yàlla wa man yutti ko topp na laa yàlla wa rasul ak yeneen tàmba yudxilhu mu dugal ko jannatin aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taatiya ci suufam alanhaaru yali yenta xaali dinañu di way beelu fiyaa foofale wa dalika loolu alfawzu moo di texee alazim guddaay ji màgg de wa man yaasi ku mooy na laaha yàlla wa rasuloog yeneen taam wa yataadda te mu jéggi ku doodoo day li yàlla yi yudxilhu yàlla moo koy dugal naaran safara xaalidan mu yaay ji sax fiyaa ci safara wala wa ñeel na ko aadabun mbugal moo xam ne muhiinun aji doya dal la mu ko de wallaati jigéen ñi nga xam ne yaati na dañuy indi alfahishata ñaaw teefu wa min nisaayikum seen seen jigéen ña ñetti xeetu njaaloo la alquran di indi am na góor ak góor loolu moo tudd liwaatu amalu qawmu luut malik ne na faqtulul faaila wal mafuul góor jigéen nee na bu ñu leen jàppee nañu rey sujet bee complément bi aji def jeeg ki ñu koy def loolu mooy liwaatu mooy ñëw ca kanam wala zaniyaati yaaniha minkum dafa am ñu ne foli nañ biyeeg foli nañ bale xajaasi ne déeréet liwaatu mooy góor ak góor wala zaniyaati yaaniha minkum mu ne itam am na jigéen ak jigéen mooy wallaati yaatina alfahishata min nisaikum kooku musaxaqa la ko arab tuddee muy jigéen ak jigéen di moom ñooñu dañ leen di mbugal njaalo dëgg nag góor ak jigéen lay doon loolu nag mooy ni mu xalse ñëw suratu nuur azaniyatu wazani moo tax mu ne wallaati jigéen ñi nga xam ne yaatiina danañu dikkee alfahishata ñaawteef wa min nisaayikum seen jigéen ña fastashhidu na ngeen sàkk seede alayhi na waral leen arbaatan ñeent minkum ci yéen góor ñi fa in shahidu buñ seede ne def nañ ko famsikuhunna tëj leen leen fil buyuti ci néeg yi xatta yatawaffahunna ba faat leen almawtu dee away jàllallah wala def yàlla law na ñeel leen sabilan aw yoon de wala daani ñaari góor yi nga xam ne nag yaati yaaniha indi nañ ñaawteef ya minkum ci yéen fa azuhuma na ngeen leen lor ba ñu dee waaye fa in taaba bu ñu tuubee wa aslaha ñu yéwénal te fekk yéen jàppagu leen leen faarido na ngeen dëddu anum awalis leen inna laa yàlla kaana musul dañ tawaaban di aji nangu tuub rahiman di aji yërëm buur ne innama tawbatu naka tuub tuub nag dafa wax léegi tuub mu ne kañ la tuub di baax mu ne alallaahi waral yàlla li léegi ni ñeel ñi nga xam ne yaamalu na ñoo def soolu bon tuub gi yàlla y gàddu mooy ki nga ki nga xam ne dafa doon def aw ñaawteef bi jaxalatin toppa daf koo réeree gannaaw gi mu xam ko su ma yettu boo nañu tuub min qaribin ci lu yàggut fa ulaayika ñooñu yettubu laahu dana nangu yàlla tuub alim ci ñoom wa kaana musul nañ laahu yàlla aliman day aji xam xakiman day aji xarala waaye wa laysati tawbatiw déet di ñuy nangu tuub li lëji na ñeel ñi nga xam ne yaamaluun dañuy def sayaati yu bon yi nag dëkk ci rekk nag ba dee ñëw xataa isa xadara ba teew almawtu dee aadakum kenn ci yéen qaala mu ne inni man day tubtu tuub naa al aana léegi dee dee duñ la nangul wala lëjina du caageen ñi nga xam ne yemuutoon dañuy dee wuhum ñoom kuffaarun way weddi la ñu tuubuñu ulaayika ñooñu aatat naa xare nañ waajal nañ lawun nañ lawum ñeel leen adaban bugal moo xam ne aliman aji metti la yaa ayyuha alladina amanu ey yow yéen gaa ñi gëm alquran yàllaa ngi wax nan ngeen di jëflantee ak seen jabar yi mu ne laa yaxillu du dagan lakum ñeel leen antarisoo ngeen di ngeen di ngeen di don na nisaa jigéen ña karhan ci forcé wala taaduluhunna bu leen leen gàllankoor li tazabu ngir ñu demee bi baadi ma aatitumuhunna ci leen ni li ngeen leen joxoon muy can nga ilaan yaatiina lu mooy ñu indi bi faahishatin ci ñaawteef mu bayyanatin woo xam ne aji biir la wa ashiruhunna na ngeen ànd ak jigéen ñi bil maarufi ci njëkk fayin karihtumuhunna suñ demee ba ngeen bañ leen faasa mën na an takrahoo ngeen bañ cheyan dara wa yajalallahu def yàlla fii ci loolu xayran yiw katiran lu bari wa in aratum bu ngeen bëggee nag istibdaala zawjin wuutal jëkkër makaana zawjin ci palaasu jëkkër maanaa wuutal jabar ci palaasu jabar la bëgg a wax istibdaala zawjin wuutal jabar makaana zawjin ci palaasu jabar maanaa denc nga bëgg nga fase kii takk keneen mu ñëw soo bëggee loolu nag waati tum te ngeen jox ihdahunna kenn ci ñi ngeen di fase ngeen jox leen qintaaran alal fekk joxoon nga ko alal nag boo koy fase fala taaxuzu bu leen jàpp minu ci loolu dara cheyan dara buur ne loolu du loolu du ngor attaaxudunahu ndax da ngeen di nangu can nga buhtaanan ciw nar wa isman ak bakkaar mu biinan wu daay ji biir wa kayfa taaxudunahu naka ngeen di mën a nangoo can nga sax xanaa loolu da ngeen ko rus wa qad afdaa yeggoon na baadukum leen na ci yéen ilaa baadin xam nga ca ndaw sa loo xam ne ndeyam ak baayam xamuñ ko ci moom kon waroon nga rus nangu can nga nga ko joxoon boo koy fase waa xad na ñu jàpp minkum ci yéen misaaqan kóllëre goo xam ne xalisan aji aji tal la mu de jàppoon na ci yow kóllëre goo xam ne gu tal la mooy góor ñëpp ñëwoon nañ mu bale ne yow la bëgg romboon nga fi jigéen ñëpp ñëw ci moom ne moom nga bëgg mu ne kóllëre googu nag war nga koo bàyyi xel ba bu seytaane ñëwee wala ak yàqute ñëw seen diggante yi nag la nga ko joxoon bàyyil lépp lépp lépp loo ko joxoon lépp na ko yóbbu na yóbbu lal baag na yóbbu armoire baag na yóbbu lépp loo ko joxoon ndax ku jëkki jukki bacca bàyyi na loolu ma ngi ñëw di mottalee jigéen ñi nga xam ne kenn du leen denc ci bu mug sëy bu mug sëy du daganal seen diggante jigéen ñépp daganuñ la ñala ci dagan bu mug sëy a ko waral am na ci ñi nga xam ne nag buumug sëy munta daganal seen diggante doo ko takk ña ca jiitu mooy say cosaan sa ndey sa maam sa maami ndey lum sori sori ña ca topp mooy ay wànqaas sa doom bu jigéen doomam doomam lu mu sori sori ña ca topp mooy ay jege ñaale ki nga bokkal ndey ki nga bokkal baay doomi kooko sëtëb kooka lum sori sori ña ca topp moo di ne wala wala baami do yaay ji xaraam na la allahuma lu may nga takk yaay ji jotaguñ la koo jébbal nga ñëw gis doom ji far daal di soppi loola ñoom buñ ko nangoo sharia moom bañut naka noona boole ñaari jigéen yu bokk ndey ak baay wala ndey rek wala baay rek loolu daganut du ñu wëjjee naka noonu denc jigéen ci kaw bàjjanam wala ndey taxam loolu sharia du ko nangu loolu alquran di wax naan wala tankihoo bu leen denc maanakaa la denc na ko abaakum seen bàyya mine nisaa yi ci la moom ay jigéen la illaa maam qad salafa lu mooy la dawe woon na innahu denc ñooñu kaana mosul dañ faahishatan diw ñaaw téef wa maqtan dim sànja wa saa bon na sabileen ci yoon xorimat xaraamaleef na aleykum ci yéen umaatukum seen yaay wa banaatukum ak seen doom yu jigéen yi wa axawaatukum ak seen mbokk yu jigéen yi wa amaatukum ak seen ba seen baay tax yi seen ndey tax yi seen ba- baay tax yi mooy bàjjan yi baay tax bu jigéen googu mooy bàjjan ji rek seen bàjjan yi wa xaalaatukum seen ndey tax yi mooy mbokk yaay wa banaatul axi doom ju jigéen ju mbokk mu góor jur wa banaatul uxti doom bu jigéen bu sa mbokk mu jigéen jur mooy ay jërbaat wa maatukum ak seen yaay yi lati yaay yi nga xam ne juruñ leen waaye ardaanakum nampal nañ leen wa xawaatukum ak seen i mbokk mi na ridaati yi nga xam ne yéen a bokk namp wa maatu nisaayikum ak seen yaayu jabar wa rabaayikum ak seen doomu jiitle lati yi nga xam ne fii xujurikum ak seenam lool la mi nisaayikum seen jabar yi ngeen denc doom ji mu fi indi lati jabar ji nga xam ne daxaltum xaraf ngeen bii nag ñoom kooku doom jo dootu ko mën a denc waaye fa in lam takoonoo su ngeen nekkuloon daxaltum di xaraf bii nag yaay ya xanaa dañ la koo may rek ah boo gisee doom ji mu gën booye boo nga tebbi bu leen buñ ko nangoo falaa junaadit baka aleykum war leen ci loolu waxalaay lu am naayikum ak seen jabaru doom kooku xaraam na la li ci na doom yi nga xam ne laa wax min aslaabikum yéen a leen jur ci seen ndigg waan tajmau xaraam na ngeen boole baynal uxtayni diggante ñaari bokk illa ma qad salafa lu may la wéyoon na inna laa yàlla kaana musul dañ xafooran di aji bale rahiman di aji yërëm sadaqa allahu naasim balaga rasul karim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللشيخين انصرنا ولا تنصر احدا علينا وزدنا ولا تنقصنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغن فقراءنا اللهم ارحم موتانا يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين